bismillah Binta Ba moom la ñuy dalal ci wàllu économie ginnaaw bi ça tourne justement autour de l'économie du pays Binta Ba on parlera du projet de loi relatif à la répartition de l'exploitation des hydrocarbures et on fera un focus aussi sur la transformation du poisson en poisson fumé wala sax nag léeg-léeg kecax mi ngi noonu asma ñaari ponk yooyu boo ko dajalee moom mooy nekk économie bu tey bi fi mu ko dooree nag foofu la jiitu réew bu Sénégal président Macky Sall ni ki mardi bi ñu génn fële ca jam ñaajo nag ñoom validé nañ li nga xamante ne mooy projet de loi relatif à la répartition et l'encadrement de la gestion des ressources issues de l'exploitation des hydrocarbures boobu les document nag ki ko présenté rek mooy ADD Abdoulaye Daouda Diallo euh, toll na ak vingt 23 article lan la ñu wax ca bés ba élément bu yembee ñu ànd ci ak Mame Sidi Diop ak ñi nekk régie ñu dem jël ko desiwaat léegi léegi. J'ai justement que le Sénégal à travers les ressources qui seront générées puisse avoir de la prospérité pour les générations actuelles et les générations futures. C'est le sens de ce cadre COS-Pétrogaz élargie. Et aussi le sens de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et cette date n'est pas fortuite. Ce 21 décembre 2021 marque trois ans, jour pour jour, la signature le 21 décembre 2018 des accords pour la construction de notre premier projet gazier, construction aujourd'hui achevée à presque 70%. c'est peut-être à féliciter par certains par d'autres diront que pétrole ak gaz yàgg na fi depuis Senghor waaye li ñu ci doon daw ci traité yi mooy exploit surexploitation par les partenaires qui vont s'installer est-ce que loolu moo ñoom càmbar nañ ko bu baax a baax parce que président Macky Sall on rappelle quand même qu'il est un professionnel du pétrole et du gaz quoi quand même moo tax na xëy na yaakaar yu bëri si asma ndaxte ku xam la ginnaaw ba nga xamante ne jaar na Petrosen li ñu wax ci bés bi nag dafa xaw bëri lool li duuf nag lii lépp xam naa du xej ci cin li ñun nag liñ ci gën a yitteel la ñuy jël rek bu beneen yoonee xëy nañu càmbar leneen 700 milliards de francs CFA loolu nag la ñu euh, estimer rek ni euh, exploitation hydrocarbures yi dinañu ko indil ba tax na projet de loi ba nga xamante ne noonu euh, keroog présenté nañ ko la muy prévoir mooy benn fonds intergénérationnel boo xamante ne asma suñu ay génération future suñu doom yeeg suñu sët yi dañ leen di bàyyi xel ci boobule projet de loi itam dina am benn création d'un fonds de stabilisation 700 euh, milliards yooyu nga xamante nag moo nar a tukkee ci exploitation des hydrocarbures 90 pour cent yi dañ koy yóbbu ci li nga xamante ne moo di budget maanaam ci gafaka réew mi waaye 10 pour cent yi nga xamante ne itam moom moo ciy des dañ koy dencal les générations euh, futures moom mooy fonds intergénérationnel bi nga xamante ne noonu euh, tudd nañ ko leneen itam loo xamante ne abordé nañ ko mardi moo di dinañ fexe ba nga xamante ne pétrole bi ñuy exploité file ci Sénégal suñu société africaine de raffinage dina ko mën a raffineel boppam comme ça duñu dem feneen euh, di ko raffiné nag lool nag njiitu réew mi nee na dinañ fexe ba paar yi nga xamante ne am nañ ko fa ñu yokk ko jëlee ko de 42 46 pour cent yóbbu ba yóbbu ko ba 49 pour cent leneen itamit loo xamante ne Abdoulaye Daouda Diallo wax na ko njiitu réew mi itam wax na ko nee na asma nag bu ñu xaar benn yoon ni pétrole ak gaz am na fi rek sama genre yi gëm ne seen salaire dafa war a yokku la ciy tukkee ci alal duñ koy injecté ci lu mel ni mbéy mi santé ak leneen ak leneen. justement ñoom euh, il y a beaucoup de promesses professeur depuis 2012 euh, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenu comme il se devrait moo tax xëy na xelu sénégalais yi di càmbar lool te xam nga nit boobu ñu neen ay yow wurus a ngi ni ñëpp dañuy wut wut si wurus googule ndax dañuy xalaat seen poche loolu dafay wone réew mi fi mu toll ci wàllu koom-koom sénégalais bu ñu dem ba foog ni ni seen poche dafa war a gën a diisaat wala salaire dafay yokk loolu yaakaar la ñoom bu ñu ñu tere yaakaar parce que oser rêver mm-hmm. c'est ce qui nous permet de rester en vie et de continuer de yokk salaire yi du maanaam cadeau maanaam du neexal eh, ñi nga xam ne ñoom la ñu fay salaire yooyu parce que ñoom bu ñu jotee salaire boobu fan lañu koy dugal da dañuy jënd mm-hmm. jënd boobu fan lañu kan moo koy produit yooyu kan moo koy génne mooy béykat yi mm-hmm. cest donc yokk salaire yi eh, bokk na ci lu yokk koom-koom mm-hmm. nekkul loo xam ne da ngay nekk fii nga ne nit kii mu ngi gagné cent mille francs su ma ko defee deux cent mille francs comme man de dama koy neexal déedéet parce que deux cent mille francs boo boo ko joxee moom mooy dundal koom-koom donc ça veut dire que bu waxee loolu man dama reetaan parce que dama wax ne ñii xamuñu lu ñu wax xamuñu lu ñu def. justement est-ce que eux ils comprennent le peuple sénégalais parce que bu ñu waxee pétrole ak gaz encore une fois foofu dañu fay teg baaram bu baax a baax mooy que feeñ euh, tonton Diaga lu feeñ depuis président Senghor. Mm-hmm. ba président Macky Sall ñoom ñëpp dañoo bañoon fitna yeew ci réew mi ndax lépp lu ñu wax alal rek. Mm-hmm. day yee fitna parce que dafay woo yeneen réew yi ñu ñëw loolu mooy xëy na indi fitna est-ce que véritablement le Sénégal est le président Macky Sall a pris les, les prédispositions pour éviter toute cette discorde qui pourrait séparer euh, le, le peuple sénégalais ou mettre en danger le, la population sénégalaise. yaa ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def même bu dul président Macky Sall ak président bu mën a doon jàmm am ci réew mi. amiin euh, surtout ci wàllu xam nga dañuy wax souvent affaire gaz pétrole or yooyu di jëlee jugee ci suuf dañuy wax ni alalu jinne la. Mm-hmm. li tax ñu koy wax mooy coow yi muy àndal. Mm-hmm. coow yi muy àndal coow yooyu nag muy àndal nag cest nit mënu koo maîtriser yàllaa la ci mën a dimbali. Mm-hmm. ndax pays yu ñu gën a organiser. gën ñoo baax organisation gën ñoo développé gën a gën a gën a gën ñoo baax ay armes. ñoom si boppam sax maîtriser ñu euh, li nga xam ne moom mooy coow pétrole. ndimbalu yàlla rek la mën a la mën a la mën a àndal. li nga coow pétrole pétrole bi ku ñu fii lay yem. Mm. sa xam-xam bëriwul. mën na koo weesu. pour affaire salaire bi nga bi ngay bi bi ngay wax. Euh, professeur état bi bëgguñu nit ñi koom. Mhm. ndax bu ñu koomee duñ leen mën a maîtriser. Mhm. léegi saa su nekk. dañu leen di nóolloo ngir ñoom di leen xiifloo ngir saa su nekk di leen mën a maîtriser loo maîtrise boo ko def boobu di leen dugalandoo ci ay njaga njaay di leen jox suuf mhm. léegi mhm. tàccu mais est-ce que bëgg nga sa askan kon bu boobaa est-ce que loolu moo tax askan gi fal la bu booba est-ce que loolu bokk na ci serment bi nga prêter ndax képp kuy président de la république di nga téye kaamin waat mbaa yëkkati sax euh, loxo waat ne yow lii jëmale askan wi kanam rek ngay dëkkee. Sénégal dafa jàpp ni ci wàllu waat dañ leen a bëkkata maanaam nit day waat sax ci lu mu gëmul. Mm-hmm. ca yàlla. beneen bi moom mooy bëri na koo xam ne bal avant nga avant avant avant ngay nekk président la République euh, ambition yi nga amoon man maa ngi euh, parfois may gis ñu ni dañuy def dañuy def programme nangam man la non jaru ko. Mm-hmm. programme bi ngeen defoon ci yoonu yokkute. ba Sénégalais yi voté leen mais appliqué leen ko. waaw jëru jëru te def beneen beneen programme mais dafa am réalité du pouvoir. boo xam ne boo fa nekkee boo boo amul ndimbalu yàlla da ngay ko takk yi très bien président Wade waxoon na ko. Mm-hmm. Aïcha mi ngi euh, xam naa foofu noonu tamit dinañu interroger madame Cissé waaye laata loolu dañuy bàyyi Binta Ba ñu ko ba noppi Binta Ba euh, dañuy wax wàllum transformation jën li mm-hmm. ci wàllum euh, poisson fumé am nañ ci kong fumé waaye am nañ ci keccax tamit loolu yëpp ci xeetu poisson fumé la bokk tey yaa ngi dikk ci keccax. mu ngi noonu mbégte ak bànneex laa am dem seeti jigéen ñu jàmbaare yooyu nga xamante ne bu ñu xëyee dañuy defar defar keccaax mu nekk nag liggéey bu metti waaye dañ koy dékku juste pour dire que jigéeni Sénégal macha allah ay jàmbaar lañu maam Sidi bu élément bi yembee dañuy dem Tëngéej foofu ñuy defaree keccaax dellusiwaat léegi léegi. man suba ngoon lañ fay xëy ba guddi amuñu heure xëy suñ xëy dañuy ñëw fii parce que gaal yi fee xëyee suba suñu ñëwee dem géej xool bu amee jën bu demee ba mareyeur yi xëccoog ñun ba sonn ndax jën fi mu toll moo tollu noonu jën moo bareetul na mu baree woon bu njëkk ba sax gaal dañ daan ñëw fii teer fii ñu jënd waaye léegi mëntuñu sax jot normal ay jigéen lañu marié yi ne fi yor seen xaalis ëpp ñu doole bu ñu manee ñun bu ñu manee ñetti junni ñoom ñu mën juróom bu ñu demee nag ba xam ne loof nañ ñoom ñu soog ñoo faale ñu soog am li ñu war a am. yéen moom sans dépense li nga yor gën ngaa bari mën nga am mën nga am 100000 benn bés nga jaay ko mën nga am 150000 jaay ko benn bés. parce que lakk ko du jën moom amul xaalisam amul ab ku moo reyam bi moom da ngay dem géej jënd sa jën indi boo la neexee nga lakk si fuur bu la neexee nga lakk si suuf waaye suuf bi dafa gën a yaatu gën a bari parce que fuur yi dafa xaw a tuuti bu dee fuur bi matt ngay lakkee mu sans dépense da ngay jënd saret cinq mille boo lakkee pare nga xolli xorom ba suba nga weer ñaari fan nga koy defar tey nga koy xolli ba subaa nga weer ko boo bëggee mu normal da nga koy suba ak gannaaw suba am na yeneen dëkk yoo xam ne nag suñu xëyee suba weer huit heures mi du ñu wari ñun nag du ñu liggéey noonu ñun dañuy weer tey bu suba ñu xool bu boowul boowul tey jii ñu bàyyi ba suba si heure bii wala ba suba si ngoon si ñu yeb suñuy dàmb àmbale àmb bii fi mu nekk nii su fi toll nii kecax bi booy jaay détail mille franc nga koy jaayee bu dee kuy jënd dàmb nga jaay ko neuf cent sans dépendre nag si poids dàmb bi ndax dàmb ba am na ba soixante-dix kilos waaw ñoo ngi si marché yi ak ñi nga xam ne dañuy dañuy dem si luuma yi jaay foofu. temps bii du yàgg suñuy loxo parce que jën amatul jën bi dafay cher boo ko jën da ngay profité jaay ko parce que jën amul heure man nga jënd jën mu cher mu am ñaari fan mu yomb boo ko téye mën na yomb ci sa mën na beneen bu yomb dal si sa kaw da nga ciy am perte waaye bu yombee moom mën nga jënd di denc. dañu ñëw rek ñafe nga toog jigéen kër gi loolu soo talul dara. parce que xam nga tax sottalul dara xam nga ñun mën nañu ba ñeendu fi ba ngoon sax dem suñu kër ñu defe ne ay millions lañ def parce que liggéey sakk la te jigéen am na moment yi muy toll yoo xam ne du far a dem liggéey parce que jamono moo toll foo ne fii góor ñi salaire ñu am matewul kër gi surtout ma ñoo xam ne da nga dem ba amatoo jëkkër parce que jëkkër dee na la jëkkër retraité na surtout ñi wàllu pêche ñi fi ne ñëpp war a ñëw jigéen ñi liggéey parce que pêcheur dañuy dem géej ba ñëw du ñu indi dara léegi bu fekkee ne kër ga yaa fa nekk ak moom yaa war a góor góor góorgóorlu say doom bu ñu yoree ay gaal tamit te gaal yi amul jën yaa fara nekk ak ñoom moo tax jigéen ñi war a génn liggéey Aïcha mi ngi noonu Binta Ba yaay booy wax na lu am solo lu nga xamante ni moom moo di xëy di liggéey rek sakk la waaye dafa mel ni liñ ci am ci wàllu koom-koom bëriwul. mi ngi noonu Asma maman bin maman Aïssatou Faye plutôt mais <laughs> Binta Faye mu ma doon bëgg yóbbaale <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak 200 femmes yi nga xamante ne ñoom lañ fa fekk ñoom itamit ñuy yëngu ci li nga xamante ne mooy defar keccax Asma des fois dañuy xëy am cent mille francs wala cinquante 000 yoo xamante ne dañ koy jënd keccax bu ko defee gis nga. noonu ñu koy def lakk ko bu fekkee ci four yi nga koy lakk matt nga koy lakkee da ngay jënd charrette soit à mille francs soit à 5000 francs mën nga ci soxla 2 ba 3 pour lakk sa kecca soit itam danga koy lakk ci suuf si gis nga carton yu bëri yi nga xamante ne fekk nañ ko fa ñuy liggéey ci li nga xamante ne asma mooy fumée bu bëree bëri loolu itam je pense que mën na am impact seen ay santé autorité yi war nañ fa doxante bu baax a baax parce que nag bâtiment yi ñu nekk ay fondation ñoo leen ko tabaxaloon nag jamono ji may wax ak yéen dañu vétuste nekk ay jigéen yoo xamante ne euh, elles de la valeur ajoutée ndax ginnaaw ba nga xamante ne géej gi neexatul te kenn kenn umpaleetu ko xëy na góor ñi la ñu mënoon mënatuñ ko ñoom ñu ngi jéem a jël la relève di liggéey ngir rek dundal seen ay euh, doom donc lu am solo la encore une fois ay jigéen lañ ñoo xamante ne asma jar nañ tàcc bu baax a baax Euh, Binta ngeen ne deux cent femmes nga fa fekk mhm. Binta ñoo ngi vingt unième siècle ñii xaj nañ ci entreprise mhm. gis nga dafa am yoo xamante ne ñu ngi koy foowee moo tax dinañ yéex a dañuy yéex a avancé à chaque fois dañuy teg benn pas en avant reculer waat parce que boo gisee keccax lii di keccax lii di confumé yan plat la mën a dem euh, confumé euh, mu ngi dem ci suppu kanja ak yeneen yeneen xeetu plat yoo xamante ne bari nañ lii di keccax tout le temps presque majeure partie population bi dañ koy togg deux fois trois fois ci semaine mhm. professeur comme ni ñuy dem jëndee meew jënd ko ci sachet noonu lañ mën a amee entreprise yoo xamante ne dafay taxaw ñu ne yi entreprise yi ñaar ba ñett yi ñooy defar keccax yi ñooy defar confumé comme ça dinañ ko mën a defaraat mu baax gën ko mën a def ci ay sachet defar ko mu set mais hmm. nii nii maire yi di ko liggéey dangay xam ne dañuy baana baana nee na da romb ñu foog ne am nga lu nekk am nga àdduna lu ci biir alors que yaa ngi ciy sonn nee na keccax bi nga xamante ne ni nga ko déggee yaa ngi koy weer parfois am na ci ñoo xamante dañuy weer suba ba après bi xaw ma mu daal di wow hmm. mais nee na ñoom dañu obligé fanaanal ko imagine perte de temps boobu hmm. noonu boobu ngay def naka nga mën a gagner li nga xamante ne moom nga war a mën a jaay tout le temps yaa ngi réduire sa chance yi nga xamante ne moom nga war a jaay donc mairie aussi dañ leen war a xool parce que ñi di dafa ay keccax ay yoxos ak yooyu loolu dafa bokk ci ñun dafa bokk suñu togg asma tout temps moom la togg mais pourquoi pas ñu defar ko mu baax defar ko ay sachet ba war ko mën a joxe sax feneen pourquoi pas non plus suñu yaay yooyu def seen mbootaay. Mm-hmm. asma mbootaay la sax. mbootaay la nii waaw ñu dajale li nga xamante ni moom moo di mais quand je parle de mbootaay c'est au-delà de dajaloo nii. Mm-hmm. bokk benn coalition regroupement coopérative. Mm-hmm. coopérative financière c'est-à-dire comme ni ñuy nattee nii ñu teg natt ren lii la ñuy jënd déwén lii la ñuy jënd. ci li ñuy soxla lu mun a suqali seen wàllum xëy googu li nga xamante ni duñ ci xaar état ndax euh, professeur man ndaare classe duma ko xaar mm. man dernier du ma am seetlu leen yenn ñun ñëpp jàng nañ école <laughs> bu doon sax ba CI C1 C2 def nañ ko wala. Mhm. yow ndaare bi toog ci ginnaaw classe ba mës nga gis ku ko dem ne ko yow est-ce que xam nga un plus un égale à deux am kenn ko laaj kon ku tarre man du ko xaar mhm. mais ki man nan lay suqalikoo avant avant ndaare bi dañoo def composition avant ndaare bi mu jël moom avant ndaare am ku jël ndaare <laughs> bi ñëpp génnee mu dem nuyu ndaare bi mm-hmm. <laughs> félicité ko waaw ne ko boo fi nekkul woon maay jël ndaare. Oh, <laughs> justement mi ngi noonu mais c'est c'est on ironise là-dessus mais professeur est-ce qu'il ne serait pas temps ñun sénégalais yi ñu jéem a xettali suñu bopp nguur gi nag li ñu koy ci xaar rek mooy mu yombalal ñu mhm. lépp loo xamante ni moom moo di suñuy wàllu koom-koom bu ñu ko dajalee ndax mhm. tey ji boo jotee un million sa benn mbokk bu nekk bitim réew bu la bëggee xettali ndaw affaire terrorisme bi dañuy topp xaalis bi ba xam kan moo la ko yónnee lu tax mu yónnee la ko loolu mën na jël temps ñu yombalal ñu loolu rek ñun. asma mhm. li nga wax dégg mhm. naa ko mais euh, dafay xaw a metti parfois xam nga bu fekkee yenn machines yi mais imagine machine yi nga ne mooy wowal. Mhm. donc yooyu foog nga ko. bu jaar port. yooyu foog nga xoolee ci loolu dafay xaw a diis ci ñoom bu fekkee yenn yi peut-être. ñoom mën nañ ko jëndal seen bopp ñu bañ a xaar mais am na yenn machine yoo xamante ne dafay xaw a métti dafay métti je suis parfaitement d'accord ak sa idéologie mais dama ne ki ñuy xaar daf leen gestuwut <laughs> waaw xoolu leen moom bu leen xooloon du ñu ko kaas ça fait deux ans qu'on est sur ce plateau mm-hmm. qu'on traite les mêmes problématiques qui n'ont pas de solution il est temps de se réveiller soi-même et d'aller à la quête de sa propre solution li nga war mooy li war mm-hmm. waaye ñi ñi war a def li leen war ñoom ñoo ñuy teg ay deux mille cinq cent première classe ci terre bi nga xamante ni l'argent du contribuable la ñu ko defaree mm-hmm. ba noppi inauguré ko ñaar ba ñetti yoon di c'est-à-dire c'est ça au ku nar tas sama yaakaar du ma la xaar damay jéem a xool nu may xettali sama bopp ci seen biir wala ci seen biir njaboot umpul ne am na ku jàng koo mën a dem ci ONG yi ut ay partenariat yu leen mën a ñëw suqali tuuti ci professeur leen mooy foofu ngay laal c'est-à-dire que ñi xam euh, ñi xam parce que seen doom yi sax mhm. dañ dem ba am ay diplôme mhm. mais luñ bëgguñu sax delloowaat foofu parce que dafay mel ni plus ngay jàng c'est-à-dire jàng bi tam mooy problème mooy suñu liggéey ñun pour fexe nit yi ñi nga xam ne am nañu xam surtout ñu nekk doomu jigéen yoon prof doguma la moom évoqué na loolu na foofu noonu ñuy defaree keccax bi am na ñoo xamante ne ay bac plus la ñu am mais amuñu liggéey pour bañ a toog à la ah. ñëw toog foofu euh, di defar keccax comme ñoom par contre seeni problème ñoom ñi nga xam ne am nañu bac plus cinq mooy bu ñu ñëwee foofu mënuñu liggéey war nañu wut war liggéey comme ñooñu dañu war a jëfandikoo seen xam-xam bi xam-xam bi ñu jàngee ni ko ni ko kooku waxee eh, kii Asma waxee ñu def ay coopérative dem uti ay milliards. c'est pour defar ay machines. mu nekk loo xam ne mu nekk lu rafet mais milliards yooyu fan lañ wuti ji mais yomb na. a des partenariats non tey tey non dama lay expliquer rek tey tey am milliard ci àdduna moo gën a yomb am un million. waaw parce que ñi nga xam ne ñoom am nañu milliards yow doo leen gis. Mm-hmm. mais ñi leen mun a gis ñoom ay intermédiaire lañu. Mm-hmm. ñoom par 1 pour cent 2 pour cent 3 pour cent la ñu jël. Mm-hmm. boo ñëwee ñu ne leen man 1 million laa soxla bu ñu jëlee 2 pour cent 3 pour cent 1 million du dara mais boo nee 1 milliard laa soxla 1 pour cent 1 milliard dina gën a yomb ci ñoom ñu dem gis ñi nga xam ne ñoom yow munoo leen gis. te loolu moo gën a yomb mais loolu pour ñu def ko il faut que nit yi ñu gëm seen bopp. justement il faut que ñu gëm seen bopp et puis surtout ñu ànd ak ñoo xam ne am nañu tuuti xam pour mun a xel leen mais loolu nag. ku ci nekk da ngay langaamu ci sa li nga yor ko bàyyi bëggoo ko bokk kenn. c'est ça notre sérieux problème. Ouais. et que madame dara mos na fi ñoo toog mu bokk jiite coopérative. Hmm. Euh, mbootaay boo xamante ni jigéen ñi bàyyi seen waar ci wàllum transformation lépp luy ay ay araw ay hmm, ni hmm, mel. Euh, moom daf leen di former ba noppi parce que loolu la jàngee woon. tugal bitim réew ñëw ba Sénégal dajale tuuti kopparam boole ay nawleem ñuy àndandoo di liggéey léegi nag bitim réew si nangu nañu aidé. mais bu ñu xamul ku ñu war a xettali mënuñu laa dimbali donc à un moment donné moi je pense que xam-xam gi ñuy jàng. Mm. na leen jëriñ ci wàllum góobule. Mm-hmm. Euh, état moom la lépp war euh, Rokhaya Dia madame Cissé. Mm-hmm. li nga wax loolu la. Mm-hmm. waaye nag ñoom comme ñoom defuñu li leen war te deux ans maa ngi lay topp ci lii la war te defoo ko damay am ful ak dayoo toppatoo sama bopp du dëgg. mais noonu Asma maa ngi ciy woo suñu suñu mbokk entrepreneur yi ndax suñu ay mbokk lañ sax nag. nañu dem bi jàppale jigéen ñi comme li ñu koy ñu jàppale leen ñu koy def bu ko defee bu ko defee liggéey bi gën a neex mi ngi noonu encore une fois ñu ngi féliciter di encourager suñu maman yi nekk foofu di daan seen doole di wax ne rek jigéenu Sénégal encore une fois gàcce ngaalaama macha allah. ay jàmbaar lañu moo tax dañoo mat a sargal mm. bés bu nekk macha allah suñu yaay yal na yàlla kàttanal leen jigéen yi yal na yàlla may leen fan wu gudd xam-xam gu sell gi ngeen di doxee yal na yàlla yokk ko incha allah rabbi bu ko defee gëm naa ni daal réew mi balaa problème yi di jeex ñu jox ko jigéen yaay booy yaa war a jël réew mi maa ko wax. mais attention jigéen yi ñamewuñu de. te adduna bi pour nga jiite ah, ko pour nga ñëw nañu ah, am sa professeur am sa tuuti eh, bi am sa tuuti aussi bi. am nañ fi waaw am na surtout waaw. jéem na xam ne waaw macha allah suñu yaay ñoo koy jaar bu baax waaw am ay satatal sall waaw ay satatal sall mais nag il faut que jigéen ñi ñu gën a ñeme. Mhm. il faut que ñu gën a ñeme mhm. parce que xam nga bu ñu waxee jigéen ñi mun nañu gérer ragal dong la en général. <laughs> très bien donc il faut ngeen ñeme il faut ngeen am audace. mais ce professeur ce que vous faites c'est ce qu'on appelle euh, du sexe faible de l'indexation et non nous on n'est pas faible. ne vous dites pas le sexe faible. <laughs> voilà justement. <laughs> ay <laughs> ca